an yal nañ fi yàgg a daje at mu ñëwit nu dàqal ma jiitu rek na yàlla fay leen ci seen coono wax dëgg yàlla sonn ngeen ñëw duggi saxaar dugg ci oto yi jaar ci tali yu baax yeeg yu bon yi rang rang rang rang ci fa seeni lali divan di tëddi ci basan wa ci fa seeni frigidaire di naan ndox mu tàng wa ci fa seeni xar yu duuf di dëñe walla nga fande sax walla nga jënd mburu rekk yéey waaye dem aljana jar na ko te itam daf ni woon jàmbu yàlla gërëm loolu laal ci moom rekk bokk ci ngërëm na te yonent bi jàmb yàlla gërëm na radiallahu anhum wa radu anhu moo ko wax ci alquran kontaan naa ci yonent bi ak ñi mu àndal kontaan nañ ci man kon lu ci nit laal rek bokk ci ngërëm li jóg dugg oto sonn wàcc lan nga yonent bee tax nga jóg kan moo la ci woo Seydil Hadji Malick te xam ngeen Seydil Hadji Malick du fo lu mu woo taalibi rek njëriñam a ca nekk waaye njariñu boppam taxul muy woote moom li mu bëggoon am na ko mooy yàlla nangul kook yonent bi waaw te nee na Cheikh Ahmed Tijani jàpp na ci loxoom ba ci Muhammad ni ko Malick mii la daan laa la doon wax waaw moo ko wax woo juróom-ñetti taalibeem yi gën a mag invité leen reer ñu reer ba nëpp mu leen dafa am martaba bu ma yàlla defal te cheikh nee na ma boo demee wax ko ku la gëm te bëgguma koo wax ci mbooloo kenn di ci sikki sàkka di dem safar te yéen lu ma leen wax ngeen gëm ko cheikh ahmed tijaan yi jàpp na sama loxo bërki ba ci muhammad lu ko malik mii la laa doon yonent bi ma jëlal sa gannaaw ba mu sama gannaaw ma def ko bàggal mun ma yaa ko ma sa am ci nitu yàlla yi demal drapeau yi nit ñi tiitaroo waaw ah. kon moom li mu bëggoon am na ko bu nit ñëwee baax na bu nit ñëwul baax na ku ñëw yaay jëriñu ci moom ku ñëwul sa affaire la moom ngërëmal yàlla la doon wut am na ko ngërëmal yonent bi la doon wut am na ko ngërëmal Cheikh Ahmed Tidiane la doon wut am na ko ak bu Umarul ci sëriñam